asalaamaaleykum suñ mbokk téléspectateurs yi ñuy topp ci biir Equivox TV tey ñoo ngi am mbégte ak contentement di dalal ki nga xamante ni moom mooy président Malaw Sow suñ waxee Malaw Sow doon ki nga xamante ni tey suñuy wax APR Nioro bokk na ñu fa dugal biir APR njëkk fa dalal ñëpp avant Mack di dem deuxième tour premier tour suñ waxee aussi moom mooy suñ premier président conseil départemental au niveau de Nioro Drip moom mooy ki nga xamante ni aussi membre la ci o conseil économique bi nga xamante ni moom membre au conseil économique nga xamante ni moom la ñu président de la république du Sénégal indil di Macky Sall tonton Malo Sow ñoo ngi lay bàyyi en tant que président bi nga xamante ni mooy conseil départemental bu Nioro Dream nga nuyoog suñu mbokk presse téléspectateurs yi. jërëjëf Ali Thiam. maaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi lay nuyu. di nuyu ñi nga àndal ñëpp nag. boole ko ak yar ak yëg. ak teggin. ndax cër bi ma nga xam ne. Mhm. moom nga am. Mhm. ci man am ko ci ñoom. Mhm. <clears throat> ndax man sa nijaay laa. du bokk dëkk bi ñu bokk dëkk mais dama nekk sa nijaay. nga nekk ci lii. am say naataango yoo ko bokkal. ñëpp di ko commencé ci seen directeur ci kaw ba ci suuf. kon yow lépp loo yor rek man maa ko yor. ñoom lépp lu yor maa ko yor moo tax ma am mbégte gu rëy. jërëjëf ci di leen nuyu di leen dalal. Mhm. di leen tatagal di leen ñaanal yàlla jàmm ndax ngeen am ndam. amiin di ko ñaanal réew mi yëpp it nag. amiin yaa rabbi waaw. jërëjëf euh, suñu nijaay Malo Sow question bu ñuy njëkk a dugg ci waxtaan wi moom mooy pour ñu xam istuwaaru APR ci département Nioro Drip ba makki di jugee assemblée national ak yan pexe nga def ba indi ko Nioro Drip imposé ko biir Nioro te dara xewagutoon. waaw histoire APR de mhm. dafa am lu ko jiitu sax. Mhm. ndax 2007. Mhm. mooy jiitu histoire APR. ndax 2007 Macky moo nekkoon directeur campagne bi mujj. muy liste latif yi. mu doon defal Ablaye Wade. ba Macky di collecter ca Kaolack. maa nga foon maa ngi moom ñoo ànd. bi ñu demee ba yàlla dogal mu gañoon directeur campagne ba jiitu woon muy présidentielle. Mhm. largement Ablaye Wade am ko. mu gañewaat législative bi largement Ablaye Wade am ko. am député yu bëree bëri ci lañ commencé ay wax yu sew ne léegi Macky mii daal cër bi ko yàlla jox ci réew mi bëggatuñ ko parce que buur bëggul ku ko jege ñu commencé di ko tappaas di def anté ak moom di xeex ak moom ñu demee noonu ba 2008 mu nekk ci fa ñu koppaas ko ba ne léegi nañu def ak seen pétition ak seen yëpp parce que Macky dafa war a wàcc ñu yeggee ko ne na démissionné parce que comme ab Ablaye Wade kilifa la daf ko faloon ci lu ko neex na démissionné xëy na dana ko jox leneen Macky mu ne moom du démissionné waaw du démissionné Ablaye Wade moo moom lépp moo yor baat. comme moom gisut lu tax mu def ko ba di ko démissionné moom du démissionné mais nag Ablaye Wade su ko neexee na ko dàq waaye moom du dimisone <coughs> waaw ñu nekk ci wax jooju nekk ci wax jooju di dem ba yegg 2009 ñi mel ni man nag nga xam ne dañ doon dem ci période bi di yàq Ablaye Wade lu ne <coughs> ma dem fekk ko néegam <coughs> magi man ak Aliou Sall journaliste ma ne ko Macky daal li ma bëgg fi ne mooy nga uut sa xarit bu am récépissé walla ñu ut récépissé buñ ko mënula am ñun ñu dem xaar la utal la base parce que Ablaye Wade mii ma ji daf lay dàq te élection 2009 yii ñu jëm man xam naa ne du jël te soxlawuma ko man damay dem Macky ñu ngi toog ma moom néegam këram gi eh, taqaloog eh, kii bi soriwul fi mu dëkkee noonu ci palaatu fi mu dëkkee nii nii nii fi mu njëkkoon a dëkk premier ministre foofu la dëkkoon fi PCRP nekkoon waaw <coughs> foofu la nekkoon mu ne ma man manu ma ko waaye yow man nga ko parce que moom ku xam politique la mu ne ma ndax maa ngi nekk député ci xeex bi génn guma ci te du ma démissionné dañ may dàq waaye yow man nga ko man a député la fi mu ne te damaa nekk ci parti bi il faut xeex bi mat mu des lu war a man ñaari semaine ci laa jot Aliou Dia ñi may tudd ñëpp a ngi dund de ci laa jot Aliou Dia téléphone mu ne ma maa ngi dem Linguère ma ne ko man nag dama soxla woon sa récépissé boobu nga abal ma ko parce que man damay def list ci commune Nioro dem élection ndax Macky Sall Ablaye Wade da koy dàq te man banaa ko te man damay toog pour ut baas pour Macky sal du dinaa ko jël nag waaye du pour ma dem ci sa tur ndax yow sama xarit nga tey dama lay wax lu lu leer mu ne ma li nga ma wax kontaan naa ci sant naa ci mais maa ngi dem Linguère bisa ajjuma su ma ñibbisee kay damaa xamut nu may da ba nga jot ci ma ne ko boo ñibbisee toppatool ma ko intérêt ba mat nga def ko càmbale joxal ma ko Mor Mati Sarr dina ko jox cette place yi ñu indil ma ko mu ñëw dimanche mu jox ko mormati mormati jox ko cette place ñu indil ma ko ñoor ma jël ko dimanche di mardi la lañ doon collecter ma def suma list ba mu pare ñun ñëpp ma daje gaa yi préfecture biñ demee li jaaxal préfet booba gouverneur bi nekk Dakar moo nekk ñoor ñu di ko wax Alsane Sall mais moom dafa ree sax ne li ko jaaxal man mi jàngul ñoom suma list bi moo njëkk a pare te dañ ne man jànguma waaw waaw ma def ko liste ñoom Macky déglul bañ bañ bañ demee ba pare <coughs> ñoom Macky ko ci diggante bi mu des gaa yi def euh, mu ñoom ñu dem dekkal ngor man ma def suma list am ñaari conseil jàll <coughs> Macky ñoom def dekkal ngor Kaolack ñu am fa ñaari conseil dégg nga noonu lañu amee ñoom noonu lañ demee élection mu gagné largement lu bëri ànd ak euh, ànd ak boppam ñu dem di dem di dem bàyyi dem élection yi ba ñuy wër 2011 2010. ci biir 2010 boobu noonu. Mhm. gis la njëkk a ñëw. ñu waaw waaw waaw. xat-xat yooyu xam nga nit su fekkee ne daa ngi ut bees nguur ñu bëri du ñeme ànd ak yow parce que ñu bëri ñemewu ñoo contre buur suñ demee nag ba yaakaar na yow mi di nga gañe bu boobaa kenn ku ne dalay jege wax ji daay yomb li taxoon yombut ci man xam nga dama ci sant yàlla bu baax. xam nga man bu fekkee doonu ma nguur doonu ma xaalis yooyu ñaar ma bëgg ci dara day jafe ndax ñi ko am dañ may xeeb ndax man toujours dama leen koy wax ñooro amul kenn ku ko moom xanaa ku wala ku ko moomul xanaa ku xeeb boppam waaye képp ku fa dëkk ci kër di fa yeewoo yaa ngi ñëpp a yem amul ku fa gën a dëkk kenn parce que kër yi lu ñuy bëri kër yi yëpp gu nekk dafa am borom kër. dëgëral ko mhm. bi mhm. mais dafa amul man saafara naa ko bu yàgg parce que foofu nga dëkk dañ ma doon xeex su ma baay amul xaalis su ma yaay amul xaalis man yoruma xaalis ñu ne maalaw be la manta gañe ñooro parce que ñooro ku sant soow doo ko gañe loolu la waxoon waaye booba Macky yeewu na parce que xamante nañ depuis ministère de l'intérieur énergie ma doon ko defal ay mouvement Nioro may def ay tojaange mu nekk ministre de l'intérieur di jot rapport yi jóge Nioro bu bu set ci politique ba ñuy dem 2000 yëpp bañ may caw jaasi yëpp moom mu ngi ci xam na ko ba Abdou juuf di daanu Abdoulaye Wade di ko daane booba yëpp man maa leen ko doon a sonal waaw métti ah xanaa nekkoon Nioro ba ñuy toj da deuxième tour ba ñëpp di daw ñu toj suma oto yi caw caw ma ay jaasi kay noonu nañ ko rey bu ci Abdou Diouf parce que deuxième tour yi Abdou Diouf ba tey mu ñëw doon président conseil départemental bokk ci li nga xamante mooy benn coalition tey ñu gis ne carrément am na ñoo xamante ñi leen jaar ci benn bokk. waaw dama lay ñëwal ci APR ba pare. parce que jaar-jaaru APR nga ma laaj. waaw bi ma nekkee conseil ba 2011 ma ngi bëgg a sos parti bi ne léegi dafa bëgg ñu forme parti Mansour Faye la wax de Mansour mooma oo ne ma président nee na nga fexe commune bu ne. nga am fa représentant dañoo bëgg a créer parti parti bi nag fi mu ne pare na dañ koy créer. loolu dépassé na ko euh, euh, euh, Nioro la ma wax xam nga man Nioro laa département ñooro laa yor. waaw 15 communes yëpp booba 14 communes la. Poos lañ xaaj Daabali ak Daaru Salaam ak Poos muy ñett muy ñett waaw mais booba Baara Ndiaye Sën Ndiaye moom moo boole woon ñetti communes yooyu di commune bu Paos ñu dem bi ñu demee ma jël biis commune bu ne trois cent soixante treize personnes ma jël biis fay ko trois cent soixante treize mille ma indi leen fii ci Macky ñu yendu fi ba ngoon jot commune boobu ba léegi ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ay responsable lu APR ba léegi ñoom ñoo fa nekk ba léegi ñoom ñu nga fa euh, ñii ñëpp dem nañ mag ñii ñëpp bokk nañ ci conseil départemental bi ay président commission lañ ku ci makki ci dana la xàmmee xam na sa tur xam na sa sant ñooro rek moo ko am bañ commencé 2009 ba léegi ñi àndoon ak makki kenn bàyyiwu ci <clears throat> te ñoo ko fa nekkal waaye ñi àndoon ak moom ñëpp it ñëpp yóbbu na leen màkk ku ci demul màkk yóbbu nga sa yaay mbaa nga jaay sa biir defaree ko sa kër. taxawaay waaw xam nga xam nga loolu. xam nga lu sigu pala politique léegi amatul xam nga bu njëkk képp ku ne responsable politique pire la bay Mamour Ousmane Ba doon na wax ne nit ku baax la parce que nit kuy bëgg réewam mooy dugg ci politique nit ku am jom tey jëlale te am fit te tabe mu ne te jikko yooyu jikko yu baax la mu ne mais léegi jikko yi nga xam ne moom lañ wax ne mooy politique mooy wor ak wax lu nekkul dëgg ak kañaan ak soxor <coughs> waaw. loolu <coughs> mhm. léegi affaire bi dafa jeexagul de <coughs> dafa gudd parce que histoire affaire nga ma wax. waaw si tënk si tënk moom laa la wax si tënk da nga gaaw a ñëw ci ñi nga xam ne nga baal ma ñi nga xam ne ñu ngi yàq ka nangam parce que ñooñu parti buñ nekk loolu lañ fay nekkee parce que ñoom duñ sos parti ñoom fu yaakaar ne njëriñ a nga fa rek xam nga gàtt xel rawut yow sosoo parti bokkoo ca rek xëy sol seen bu rek foo ñëw naan maay responsable APR bi xam nga loolu dof dof dafa koy def mais yow soo ñëwee fekk. bàyyi xam nga man damay tudd man du ma rex rex le. Jim Mamad Ba. yaa doon ànd ak moom. non man bàyyi naa politique. waaye politique laa wax tey journaliste moo toog di wax ak yow waaw d'accord naa mais dañuy fàttaliku mais. Mm-hmm. taalibe daara ngaay waxati tam. waaw xam nga bu ñëwee tey. Mm-hmm. di war naan maalaw dañ ko fiy jëlee. Mm-hmm. ah diw dañ ko fi jëlee te moom mu nga woon te Ablaye Wade te même poste bi mu yor Ablaye Wade da ko ko joxoon. te Macky nangu ko ci moom. ñëw continuer ak ñoom te dama ko doon ñaan Macky ne ko si directeur yi fi ne nang leen fi bàyyi. <coughs> loolu ñaan nga ko makki sàll bu dul jeex ñoom xam nañ ci dara. ñoom la moom ji mat boobu moom ñoom la Bouba Diallo njëkk a recevoir directeur cabinet bu Macky. kun yow jàpp nga yaa ngi leen di jàppale. maa ngi leen di jàppale parce que dama ne ko bu ñu leen yóbboo dañuy perte. Mhm. bu leen dàqee ñun dañuy perte ñun waa Nioro ndax mhm. feneen lañ leen di fale. Mhm. fu ñu tase fu ne ma wax ci moom lu baax ma wax ci ñoom lu baax. ñoom ñu ñëw nag ñoom PDS ya àndoon ak yëpp ànd ak Ablaye Wade daanu. parce que ñoom waroon nañoo xam ne bu ñu ëppoon xel Macky Sall. wala ñu dàq ko politique. kon ñoom duñ daanu. parce que loolu mënoon nañ ko xelal Ablaye Wade bañ nekk ci nguur ga. mais seen xalaat yu bon yooyu ñu doon ànd ak Ablaye Wade ak wax yoo xam ne dara du ci dëgg looloo leen daane. mais pourquoi tey noo gisee ñu ñëw taxaw Nioro drip moom ak ki nga xamante ni mooy Amadou Lamine Dieng ak Ali Mané ñu ànd di créer seen coalition noo gisee. waaw coalition bi du dem ki nga xamante ni yow. yaay la patron de la l'APR. xam nga man damaa sant yàlla. Mhm. xam nga man Macky defuma fa patron. Mhm. Macky man maa ko fa def patron. Mhm. Macky man maa ko dalal. di ànd ak moom. Mhm. mu ànd ak ñoom ak seen daraja. jox lépp jël lépp jox leen. Mhm. ñu wëlbati ko di ma xeex ñu xeeb ma ak su ma néew doole yaay yàlla dimbale ma ak doole. Mhm. parce que élection yi ñu dem maa leen di gagné. ba ma ngi xam ne nag ñii. ni ma sosee parti bi noonu laa leen ma ne ndax 15 maire Sénégal ñooy département Nioro rek a ko am. àndu ñoo président conseil départemental ba te bu ñu demee mu gagné leen. maa ngi gagné au Baara Ndiaye suma ma laa def ci moom. Mhm. benn maire bokk ca woon. ci liste ba. Mhm. conseil yi fan laa dajale ñu fal. Mhm. ma gañe leen. ba ñuy dem référendum dama jël lépp delloo leen. ak Moustapha Niass jël suma xaalis ak yëpp ànd ak ñoom. ngir bëgg ma ki gañe référendum. ñu gañe ko. bi ñuy dem législatif dañ ne nañ rey maalaw. parce que Macky dootu ko ñeme tudd bu ñu tànnee Moustapha Niass def ko député. jël Aly Mané teg ci ko am tànn Jéema Ndiaye ba maalaw dootuñ ko tudd. ñu tànn jël Lamine Dieng def ko mandataire jox ko moyens yi may tamit ma xëy oo 15 communes yi ña amoon kenn ku nekk ñëw kenn bawu ma ci. ma jox la une tonne ceeb ak 500000 francs commencé di def tournée man bés bu ma xëyee fu ma jëm. yóbbaale ngi naan Malaw loolu daf ko defoon stratégie pour ñu yóbbu ko si liste nationale. déedéet man man dama doon gagné. man dama ne. soo demoon da ngay déglu di gagné. dama leen doon gagné maa doon tedd. yow soo demoon da ngay gagné Moustapha Niass damay gagné parce que Moustapha Moustapha su ma lépp la fi ne ñoom xam nañ ne dama doon gañe parce que Macky jot na ay renseignement loolu tax mu woo ma ne ma la nga nekkoon génn ci. Ah, yow après muy muy la au niveau su ma dossier koo jox bon waa. muy la au niveau national. waaw suma ma léegi ba ñu indee au niveau national. waaw. après Malaw Sow doon député. waaw mais ci biir député boobu noonu. da nga si boolewaat beneen nombre tànk mooy soo ñëwee ba Nioro drip vous êtes le président du conseil départemental. loolu dafa fekk léegi ci benn aire département yi bàyyi ma àggali. waaw si aire département yi Macky moom moo indi léegi dafa tas région yi daf ko département. mais ci biir conseil départemental bi. Hmm. parce que mooy mooy si ñaareelu hmm. pom ponk bu ñuy dugg. est-ce que mën nga ñu wax yan réalisation nga def au niveau départemental. aussi ak blocage yi fan la nekk ak lu koy débloqué mais départemental. dañoo ñëw ne dañuy dem Benno Bokk Yaakaar. ma ne leen man duma dem ci list Benno Bokk Yaakaar suma liste APR la. waaw loolu parce que gëm naa ne loolu nga waxoon. Mhm. parce que gëm naa ne suma APR suma liste bi mën na gagné. Mhm. bon waa ne ma président nee na duñ dem ci liste benn liste APR liste Benno Bokk Yaakaar la ñuy dem ku man danga ko ci ma ne ko man nag dew ma ci. Mhm. te it mën naa wut récépissé comme ni ngeen koy amee su ngeen ma ko joxul ma am ko feneen. mu ne ma da ngay bàyyi Macky Sall ma ne ko du ma ko bàyyi pour lan ma di ko bàyyi mais damay demal suma bopp su ma pertee ñëw suma ma pertee mu ne ma boo pertee nag ma ne ko ndax dangaa ngaa mos a gis politicien buy perte ñu rey ko <coughs> ndax su ma pertee dañ may rey mu ne dee ma ne ko kooku su ma yoon nekku ci ñu dem ba mu des loo bi tamit ñeenti fan Macky ne leen du am dara mais jox leen ko mandataire bu APR parce que am na droit xëccoo ko ñu jox ma ko ñoom la Dieng ñëw àndaman ku ma ci ne ñu lànk parce que gëmuñu woon ne mën nañoo gagné Moustapha Niass ñoom gëmuñ ko woon bi ma xamee ne man maa ngi conseil euh, économique et social ñi ma àndatoon démb barki démb kenn gisu ci mag yi ñëpp a sonn ma xalaat ne léegi comme boo gañee conseil départemental même comme ñoom ñu ko miinoon ci conseil régional boo demee réunion conseil dañ laay fay cinquante mille francs ma ne léegi naa leen ci boole mu ñoom ma def leen liste nationale <coughs> proportionnelle ndax su ma gañee ñu jàll su ma gañul ñu jàll ñoom responsable yooyu yëpp ma dugal leen ci liste proportionnelle bi am ñu ma dugal ci liste majoritaire bi ñoom Habib mi ñëwoon Habib <coughs> Habib Niass. ma ko ma ko politique dafa am pay. yow Habib nga tudd sant Niass. dégg nga di maire di au conseil économique social jógee PDS ñëw suñ ne ràlli nga ñëw APR daf ñuy yokk. mën ne jéem a njaay yow it dinaa la jàppale dinaa la fay. parce que yow it boo nekkee directrice bu euh, état civil. Mm-hmm. tudd Jéema Njaay sant ba dëkk Ñooro nekk PDS buñ ne ràlli nga ñëw APR daf ñu yokk comme ñëw ngeen ànd ak man nag may dama leen di jàppale ma a Jéema Njaay yow dinaa la def nga jiite listu euh, proportionnel bu ñoo commune Ñooro man ma jiite listu majoritaire bi ndax yow boo nelawee sax di nga nekk conseil même ñun buñ gañut comme say mbokk a fi ne xëy na bu keneen gañee mun nga ne mën nañoo négocier ba nga jot mairie bi léegi ma wax ko abi ne ko yow dama lay jox mandataire <coughs> def la première adjoint pro euh, kii si première euh, su ma jiitoo nga topp ci suñu gañee conseil départemental su ma jiitoo nga nekk suma vice président gëmuñ ko mais après loolu ñu dem. Mm-hmm. ma def ma def liste bi noonu. Mm-hmm. dugal ñoom Lamine Dieng ñoom ñëpp. mais ñi nga mujj a tudd kenn bokk ci woon Alimaane PS la boo xam ne àndul ak PS yi. ba mu ñëwee dafa nax nit ñi. li nit ñi alimaane PS. PS bu àndut ak PS yi. ba mu ñëwee dafa ñëw ak alalam bi mu ñëwee ak alalam leen nit ñi xam nga toujours dañuy wax naan leketu kese naxut ak béy. Mhm. waaye ma ne leen de ku déggul wolof moo koy wax waaye béy bu mu nax bu keroogee mu dee du ko jik leketu kese du nax béy waaye jigut béy léegi bu ngeen nekkee fii ak responsable yi fi woon mhm. ñu di leen jox ay ñaar téeméer ñett ñuy waxtaan. Alimaane moom daf naan nañ bàyyi ba mu jot ba mu am mooy bu nee ndax leen ba mu ñëwee. ay camion déglul ay camion musique la indi. def listam defal Moustapha am listam ñoom ñu dem élection mais bokkuloon ci suñu liste ñun ñu gagné Poos gagné Daaru Salaam Ali Diadio bokkuloon ci suñu liste nekkutoon APR. mu def liste boppam ànd ak sëñ bi sëñ bi jàppale ko mu gagné foofu. Mhm. waaye du nitam sax Lamine Dieng. PDS la woon boo xam ne ba ñuy dem wàcc ngu na deuxième tour moom lañ xeexal ba toj otom bi buntu këram. xeex bu métti. mosta ànd ak ñun mu ñëw nag ak dara jaam Macky Sall jël ko fal ko def ko directeur. mais loolu noonu tey est du dudduwaat xeex yooyu noonu si élection. yu man ragaluma ko xam nga ñu ko ragal. Mhm. mooy ñu ci jaarul. mais tey Malo Sow bu xam. tey maalaw nga ne APR yow yaa ko indi ñoor mm-hmm. ak loo jaar Macky Sall ak loolu yëpp mm-hmm. ban discours ak ban taxawaay nga mën a am pour uuf njaboot gi yëpp moom laa leen uufee ba léegi dama la ne quinze euh, mm-hmm. quarante cinq mais est-ce que yéen si dialogue yéen ñëpp pour parce que opposition yi ñoo ngi ñoom ñëpp ma ne quarante cinq opposition yi amul ñooro opposition amul ñooro Pastef moo fa jël Pastef mooy commune ñooro moo fa jëloon deuxième déedéet temps yi passé ñoo ngi def ay dajaloo ba nga dem. ba nga dem kii ko jëlu fa DCM jëlu fa DCM. élection ñu génn élection présidentielle ñu jëlu fa DCM ji Ba moo ñu ko yóbbee ndax moom moo ñëw fii étudiants yi. Jim Mamad Ba ngay wax de. Jim Mamad Ba fii ci eh, ci étudiants yi. Mm-hmm. la ñëw jël leen ñoom ñëpp jëlal leen ay biis. reyal leen nag xamut politique xamut fu muy fanaan. ba mu mu indi leen ñoom ñëpp ndeke fexeel nañ ko. bureau ba mu wotee dañ ko faa gagné. mais attends moom rek lañ gagné foofu mais Jim Mamour APR yaakaar la te moo ngi lité pour président euh, gagné aussi. mais moo Jim ma ne. Jim mosu faa man a gagné te du fa mos a gañe te man loolu du fa am ndax man. dépendre non attends aussi ban preuve nga am tonton Malaw nga baal ma àq ne étudiants yi Jim moo leen indi après ñu dem woteel Pastef. ah mais pro mun naa passé loolu. ñoom ñëpp fañ wotee ñoo wotee foofu ñu gagné leen këram lañ añee. kan moo ko woteel lu tax mu ñu gañe ko fa kan moo ko fa gañe kon non est-ce que est-ce a ne carrément indi woon ñoom li ngeen di wax yëpp am ngeen ci preuve non ñun lépp man man preuve bi ma am leer na mhm. indi na leen dakaar wàccee na leen këram sorewut ak bureau de vote loolu yow yaa ko wax loolu yow yaa ko wax ah déet man waxuma ko de man lu am laay wax xam nga man lu ma wax dama laay tudd tur mhm. te nee naa leen man suma député gi bokkuma ak Sonko mhm. man fuñ ma ooyee convoqué ma ooy ji yoo assemblée yoonam nekkul ci man fu ma defee ay recours nañ ma oo su ma tooñee bu ma demee brigade ba buñ ne ma summeekul damay summeeku. Mhm. man bokk ma ci immunité parlementaire yi ñuy kiyal député. waaw loolu d'accord na mais léegi ñoo ngi jëm si ay élections yi nga xamante ni moom mooy élection locale ak élection départementale tey opposition seen dajaloo bi ñu dajaloo yow ban jàngat nga si am. opposition amut. Sénégal. dem waaye amut opposition xam nga lu fi am. ay waxkat parce que ñun ñëpp politicien lañ parce que boo seetee ñiy déglu dañoo amul xam te yow nga nekk politicien ma nekk politicien yow dafa argument lu dul dafa dem ci àll bi yëpp ay kaar ñëw binduloo leen waaye yow xanaa dëkkoo ci réew mi su fekkee ne ñu ñëpp nit la ñuy ut man a ba mbaq mais ànd ñoom ñëpp dañoo signé d'accord ne carrément jëlee fi système waxuma la waaye mënuñ fee jëlee système dégguloo ñoom système boobu ñoom ñoo koy wax nuñ ko fi jëlee te ñoom ñoo koy wax ne yow yow boo ñëwee tey xam nga politique. non réew mu amul opposition c'est-à-dire qu'une démocratie war nañ ko xoolaat am nañ opposition bu baax dañoo amul nit ñoom dañ dut gañ. waaw loolu kay ngay wax mais opposition mais opposition am na. mais opposition day wax dëgg opposition day bëgg réewam comme Ablaye Wade mais opposition boo xam ne sos rek ngay wax kooku du opposition. parce boo kan mooy sos bi. ne ma ne sos rawul ñii li ñuy def teguñ ko ci yoon parce que dañoo jël ay kaar jël ay nit indi leen ñuy bindu. waaw yow mi ko ca dëkk ba. su ma jëlee ay kaar mbàpp yow doo dem jàmm gën jël fa ay kaar indi yow commission bi nga xam ne dañoo toog di def seen liggéey ñoom xamuñ ko ànd ak maalaw xamuñ ko ànd ak sàmba soo ñëwee ñu naan dañoo tere kii dañoo bàyyi kii xam nga ne ñooñu kay yow mi leen di déglu gëm ko sax ñoom ñoo la tane mais loolu loolu opposition bi waxuñ loolu ñoom opposition bi carrément dañoo jug carrément ne système bi fi nekk dund gi seer na système bi fi nekk mënu maa ngi sonal nit ñi li fi nekk parce que loolu la opposition bi wax suñ ko waxee réew mi duñ leen dégg commune baa ngi fi nee nga Sonko moo jël deuxième yaa ngi wër ban nitu Sonko nga dégg gum ci commune bi wala nawet bi Sonko ñëw oo leen jox leen xaay ne leen dem leen dimbale ñi àndoon ak man non man opposition déedéet man opposition moo ko def non non attends man may poser question man dama fi ñëw pour nga poser ay question la ne. Mhm. soo waxee fii da wax fële. Mhm. opposition nag wax dëgg yàlla warul la fàtte ñi ànd ak moom. pouvoir war sa fàtte ñi ànd ak moom. Mhm. parce que pouvoir ni mu neexee nit gàntu pouvoir xaalis bi ak mais alal ji pouvoir bi ñoom ku leen ëpp alal ñoom ñi nemee def wëlbate ko contre di ur réew mi kay xam nañ li réew mi saf. ok mais léegi booy demee bàyyi ur réew mi da am loo man léegi suñu waxee tonton Malaw saw ah. si élection yi ñuy jëm. Hmm. monsieur le président du conseil départemental tamit. Hmm. ban waajaay nga koy waajee. ci biir APR nga koy waajee wala ci coalition benn bopp. man na ma daan waajee fa ma dëkk rek di gagné. xam nga man xaw ma coalition non waajee fa doon dëkk c'est-à-dire yow APR nga mos a xam lu ñu wax. APR mais ma ne ma ne ak benno bi gëm naa ko dama cee ànd. Benno Bokk Yaakaar. waaw que man ku bëgg Macky Sall kon ànd nga ak si Benno lañ nekk nii ñoom ànduñ ak Macky Sall. ñi àndoon ak ñoom ànduñ ak Macky Sall seen intérêt moo leen ci dugal ak wërsëg bu leen Macky Sall jox bu doon ñoom rek Macky Sall dee na ca département. loolu bëgg su Macky su fi Macky nekkatul dañuy dem seen ah, euh, ko si jàppale. ban deuxième tour amul ñooñu nga tudd. 2019 jàppale leen 2019 bi ñu nekk 2019. ba Macky doon président ñoom kañ la falu. 2012. 2012 ba 2019 ñaata at. 2007 ans la. déedéet waaw ñoom ñoom ñoom ku leen ci ku leen ku leen ci dugal ñoom du dañoo daanu ba pare ñëw Macky intégré leen boole leen. jox leen bu la ñoom rek Macky daay falu. mais est-ce seen xam-xam tamit lañ leen jëlee. ban xam-xam politique amul xam-xam politique amul xam-xam daf leen bëgg jël leen mais politique. wax naa ko fi nooy nooy waaje élection li xam nga xam nga journaliste yi dañuy ñëw. Mm-hmm. di wax naan maire nangam. te maire ñoo leen gën diplôme ñun ñoo leen gën licence. Mm-hmm. parce que ñun état population Sénégal ñoo ñu fal. fii ku fi am xam-xam di jàngkatu tubaab benn directeur moo signé sa doctorat wala mu signé sa licence. Mm-hmm. noo am na non am na benn côté boo xam ne dama lay leeral foofu tonton Malaw. gis nga lu ñuy wax intellectuel. jàng tubaab jàng alxuraan sanq yaa ngi koy wax suñu waxtaan. soo tukkee rëkk yu bëri. waaw statut intellectuel moom sew. intellectuel mooy ku xam soxla askan wi. Mm-hmm. dem di ko faji. man jànguma tubaab jànguma tubaab jàng alxuraan. te loolu déedéet man jànguma mm-hmm. mais intellectuel ñun nuñ koy waxee. Mm-hmm. du loolu. intele koo dégg mu ne diw intellectuel la boppam la jël yëkkati ca kaw. mais intellectuel bu dimbale nit ñi yooyu. gisuma ko fenn intellectuel ci boppam la ne waaye du ci population bi. nit koo xam ne kii ku baax dégguma tubaab gisoo guma benn intellectuel boo xam ne bii topp nañ la ngir njëriñ sa intellectuel buñ ñu koy alal la tax képp ku ma jis ñu fii topp ngir njëriñ nit ñi wër la boo duggee ci école yàggoo ca bu fekkee mos nga cee dugg mm-hmm. ñi ci ëpp dugguñu école mm-hmm. waaw parce que cadre politique boo ñëwee dañ doon wax cadre ak ñun cadre yi nañ dem gisee. ma ne leen bàyyi leen ñun cadre politique amul cadre cadre politique mooy ki am nit. jërëjëf mais ku yow comme ku am nga mbooloo daal le département de Nioro Drib nga nekk si coalition bu ñuy wax Benno Bokk Yaakaar dañoo bëggoon exclusivement nga wax ñu si biir Equivox nooy préparer les élections locales et loolu yomb na ma na ma ko doon préparer di gagné mais si biir coalition bi wala beddeeku loolu lañu wax tontu man coalition bi ci laa ànd coalition bi yow sa coalition kan kan moo ci nekk si département man ñëpp a ci comme la ànd wax ñu ñu nekk oh, oh, non du ma parce que ñëpp a ci man awma coalition ànd Moussa Niass mooy suma patron moom laa gën a gëm fépp fi mu ne Moustapha Niass bëgg Macky Sall Macky Sall ma gëm ko gëmee ko assemblée nationale gis ne li muy def assemblée nationale. kenn ku ko man mais tonton Malo Moustapha Niass boobu ngay wax. waaw. Benno Bokk Yaakaar la bokk. waaw. mais ca laa bokk partem AFP man ca laa bokk waaw élection député législative yi passé moom la ñuy wax léegi nii si ginnaaw ne soo demoon da nga koy gañe du booba yaa ngi doon ànd ak moom ngeen di ma saaga te fi mu ne juboo nañ bàyyi waxtaan ma ak yow man bu demoon bu demoon man bàyyi man man politique non man samay activité politique bàyyi naa ko politique nag boo fa tegaale na ñu <laughs> waaye yow ba ngeen daan ànd yéen ñëpp daan ànd di ma saaga bul ma wax loolu tonton Mara bul ma wax loolu loolu yàgg <laughs> loolu laa lay wax Moustapha Niass booy foog léegi soo demoon ngay gañe moom nga nangul nga ko benn boo ko yàggal pourquoi nanguloo ko nit ñi déedéet nanguluma ko parce que Moustapha Niass yemul ak moom dama la ne Moustapha Niass assemblée laa taseek moom xam kan mooy Moustapha Niass xam fi mu féetee Macky Sall. gis la muy def assemblée ci député su nekkutoon ak moom at mu jot Macky dana am ñaari président assemblée wala benn. waaw léegi tey suñu la joxoon kàddu waaw ne la nga wax ak askan bu lay déglu. di askanu Nioro direct. Hmm. ak ki nga xamante ni mooy président Macky Sall si élection yi ñu jëm. ban kàddu lay doon. kàddu bi muy doon mooy bi ñuy def rek ñun. Hmm. gagné dem élection gagné. Hmm. waaw ñun daal Macky mooy gagné. point final waaw Macky mooy gagné Moustapha Niass mooy gagné. 15 communes ñoor yëpp nga wax de. 15 communes yëpp moo koy gagné su gagné 15 communes mais 15 communes gagné yëpp 100 pour cent moo sam tey Sénégal soo seetee. ñëwatewul non attends waxaatal 15 communes ñoor la nekk mooy gagné moo koy gagné département Nioro laa la wax Macky Sall moo koy gagné. département Nioro Macky koy gagné largement man maa la ko wax. xaw ma nag commune bu dinañ toogaat ñu waxaat si. dinañ toogaat ñu waxaat si incha allah xaw ma commune bu dem. mais nam ko doon gagné dana ko gagnaat lu ko raw. 100 pour cent la koy gagné waaw. tey dana ko gagné bu baax a baax. Mhm. waxtu ñu mayoon jeex na président Malaw tey suñu la waxoon ci biir Equivox TV nga gis ay jeunes yu dëkk Nioro Drip dëkk boo dëkk nga doon président conseil départemental la ban kàddu ngay wax ci biir Equivox. parce que Equivox. Mhm. sawar ci moo tax ma nangul leen. alhamdulilah rabil alamin ndax itam te maa ngi fàttali suñu téléspectateur démb dong lañ ko ko wax. après mu nangul ñu émission bi. te bëgg leen. Mhm. moo tax ma nangul leen ko. Mhm. nga ma nekk sa nijaay moo tax ma nangul leen ko. Mhm. parce que tey man njub ak baax laa lay ñaanal. amiin yaa te toujours dama la doon conseil da la ko wax. li may tàggatoo ak ñoom da yéen daal mooy. am leen ak tàggatoo ak lay seetaan tamit ak sa militant yi. waaye yéen a ma gën a itteel fi mu ne. yéen laay tàggatool. di leen digal. <laughs> waaw d'accord. gis nga nit. <laughs> day fonk boppam. Mhm. fonk métier mhm. xam ne kenn yoru ko ku dul yàlla. Mhm. koo fi yaakaar ku yàlla perte nga. liggéeyam journaliste lu ko gën amut. waaye lu ko gën a bon amut. ndax dégg ngeen sax ami société dama koy wax mu ne. wax suy dajeem réew. wax ja war naa rafet. jërëjëf. am mbind. buy joxe xam-xam. nee na mbind ma war naa wér te wóor. dëgg la waaye ñun ñi xamul dara. ñoo war a we ci dégg naa. Mhm. ñoo war a we ci foog naa. Mhm. waaye journaliste bu am bopp. Mhm. du dugg ci kañaane kii wala naw kii. dafay naw liggéeyam. bëgg liggéeyam. gëm liggéeyam. jërëjëf di dund euh, koo xam ne loo wax. fuñ la woo nga waxaat ko. waaye bëgg maalaw maay sana jaay waxal ma lu dul dëgg. bañ ke leen waxal ko loo xam ne lii lu ñaaw la te yow dara leeru la ci. nga yaakaar ne yow da ngay avancé. doo ma sa ñaan yàlla ñu génn si waaw mën a doo ma sa avancé. Mhm. moo tax ma ne yàlla ngeen ci génn. amiin yaa lu ngeen xamul lu ne. Mhm. bu leen ci dugg. Mhm. lu ngeen xam lu ne. jërëjëf ñeme leen ko. merci pour le conseil. bu leen xeex kenn. waaye am leen la te gëm ne yàlla mooy joxe. gëm li leen yàlla booleet. su ngeen ci saxee. kanam rek ngeen jëm. lépp luy seen wërsëg dangeen ngeen ci jot. waaye dugg ci ay débat yoo xam ne kañaa la di ci dugal. Mhm. dugg ci ay débat yoo xam ne man mi tekku dara maa leen ci dugal. Mhm. wax ba ngeen dugg ci loo xam ne lii amalu leen jariñ ku am mhm. ful la du ko def. jërëjëf ngeen ko moytu. gëm soo ko defee daal yàlla dana leen dimbale. du ngeen ñàkk da ngeen am daraja te di ngeen am bayre te di ngeen am yërmande yàlla. jërëjëf waaw jërëjëf suñ mbokku téléspectateurs yi. ñoo ngi jeexal suñu émission bi nga xamante ni moo nekkoon gan a Equivox tey nekkoon suñ gan di président Malaw Sow doon président conseil départemental bu Nioro du Rip doon suñ nijaay doon suñ papa ci côté yëpp yàgg ñu jox ay conseil doon na membre au conseil bi nga xamante ni tamit moo nekk di Sénégal doon na nit koo xamante ni tamit moo le premier président du conseil départemental au niveau de Nioro du di leen wax au niveau de Equivox TV régulateur social la ñuy gérer tonton Malaw si Sénégal régulateur social mooy koo xamante ni moo li askan wi di jooy nga jël ko eggale ko ñi nga xamante ni ñoo jiite information ak ñiy jiite lu ñuy liggéey nga jël ko jotale ko askan wi te doon na seen boo xamante ni leadership la au niveau national te bëgg neen mu àgg au niveau international ngeen ñaanal ñu si di wax nit ñëpp képp koo xamante ni bëgg nga wax nga ñëw ñu toog wax si yar ak teggin passer les bonnes information doon réglateur social saa su nekk loolu mooy suñu liggéey wasalaamaaleykum wa rahmatullah et à très bientôt nos téléspectateurs merci beaucoup